lah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi noo ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ragal yàlla kat mbir mu màgg la ndax mooy def la la sa boroom digal ca ko bëggee bàyyi la la sa boroom tere ca ko bëggee mbokki jullit yi xol bi nga xam ne moom la boroom bi tabaraka wa bind def ko ci doomu aadama daf koo wutal melokaan woo xam ne du ànd akuk dal du ànd ak jàmm du ànd akuk féex lu dul su fekkee li taxoon mu bind ko loola nga ca loolu moo di wéetal sunu borom tabaraka wa ak sellal ko jaam bu la gën a dëgër xol ci wéetal boroomam gën laa dëgër xol ci sellal ko xamal ne kooka moo la gën a dëgër ci wàllu ngëm yàlla moo la gën a dëgër itam ci bëreeg seytaane ak bëreeg bakkanam ak bëreeg lépp loo xam ne lu koy tàggaleeg diineem la wala mu koy néewal doole loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala santaane ci laay alquran yu bare bare bari di wax ne na ngeen sellal diine ji yàllay kese tax am na fu mu waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul waxal inni umirtu an abud allaha muxlisan lahu diin waxal nit ñi ne leen liñ ma digal lii la naa sellal diine ji ngir yàllay kese kenn bañ ci am cër waxaat ko ne li wér te wér mooy diine ju sell yàlla rek moo ko yeyoo moom dong moo yeyoo ñu sellal ko si diineem waxaat ne yéen doomu aadama yi day digaluñ leen ludul ngeen jaamu jenn yàlla seenu jaamu seenu mbëggeel seenu ragal lépp jëme leen ko ci yàlla jooju nga xam ne ku sell la ku soree ak ñi ko xamul yiñ koy askane ci xeeti bokkaale la waxaat ne yéen doomu adama yi day digaluñ leen lu dul ngeen jaamu yàlla te sellal diine jooju ngeen wéetal yàlla seenal sellal diine jooju ñeel yàlla loolu lu màgg a màgg la mu di wéetal yàlla ak sellal diine ngir yàlla wéetal gi moo lay xamal ne borom bi tabaraka wa taala kenn rekk la ci yow mooy ki la bind moo lay wërsëgal moo xam say mbir lu nëbbu ak lu feeñ li nga fiy def it dara ump ko ci kañ nga fiy jóge it moom borom boobu tabaraka wa taala moo ko xam ak ci naka la ak ci fan la ki nga xam ne yooyu yépp daje ci moom te wax ne lenn moo tax mu di la bind kon saa boo fi nekkee di yëngu ci lu bokkut ak loola yaa ngi sànq sa waxtu nee na li tax mu bind la yow jinne ak nit moo di jaamu ko rek wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun luñ la mën a wax ne moo tax yàlla bind nit ak jinne lu dul jaamu ko xamal ne loola waxi neen la loolu nag day mbir mu màgg dul woyof ndax wéetal googu su amee faw sellal gi diine dana am ginnaaw xas nga xam ne mooy sa boroom moom doo nga yeyoo ci yow jaamu la muy firi mooy say jaamu yàlla da fexe ba doo ci jox keneen ab cër kudul borom boobu tabaraka wa taala moo tax ñaari mbir yooyu taqaloo muy tawxidullahi wéetal ko wa ixlaasu diini lahu ak sellal diine ji mu ñeel ko moom borom bi tabaraka wa taala ñaari mbir yooyu moo tax borom bi tabaraka wa taala yónni yonent yi moo tax mu bind àjjana ngir faye ko ñi def mbir yooyu muy wéetal ko ak sellal diine ngir moom bind sawara ngir mbugale ko ñi moy ñaari mbir yooyu loolu moo tax su jihaat masee am daraapoom yëkkatiku woote ci yaari yëf yooyu moo ko waral wala noonu bi yàlla jóg bëgg gàllankoor jullit yi ba nañ mën a dund seen tawxiit ak seenu sellal seen diine ñu yëkkati jihaad di jaamaarloog noonu boobee fu loolu ma sa amee ñaari mbir yooyu moo tax loolu moo tax musiba mu mas a wàcc ci yéefar yu jiitu ya seenum noonoog ñaari mbir yooyu moo tax noonoog tawxiid ak noonoog sellal diine loolu moo tax jaadu na ci bépp jullit boo xam ne am na yërmaande ci boppam te jàpp naa ne kenn ku nekk loo ñàkk-ñàkk yërmande lu sa xol wow wow jàpp naa ne am nga yërmande ci sa bopp kon ko am yërmande ci sa bopp ku ne war ngaa dox góorlu ak góor góorlu gu ànd ak fulla ci fexe ba sa digganteeg sa borom ci wàllu wéetal ko dara du fa dox jinne du fa dox seytaane du fa dox nit ku baax du fa dox bakkan du fa dox àdduna du fa dox fexeel ba wéetal sa boroom ba bu kenn ñëw yàlla yàlla lu ci sa kanam ba nga jox ko cër bu toll ne tarfatul ayni ci wàllu yàlla ci say topp yàlla ak sa jaamu yàlla yi ngay def moo xam julli la moo xam koor la moo xam looy rendi la moo xam lépp looy def loo xam ne danga nga caa jublu bëgg caa am tuyaaba fexeel ba bul ci jox doomu aadama ak cër loola borom bi tabaraka wa taala képp moo ko yeyoo keneen ku dul moom yeyoowu ko amma topp yonente bi sallallahu alayhi ko ndax moo ne wa man yutiu rasula allah ku topp yonente bi nee na topp nga yàlla loolu mooy wone ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam du jàdd mukk li ko borom bi tabaraka wa taala sant soo ko toppee xamal ne ci yoon wi mu la xalal ci nga jaar te sax mënee su te jubal diine te toppoo ko kon mbokki jullit yi ñu xam ne jaamu yàlla bi su wéralee tawxid moomu sellal diine am na ay meññeet yu neex yu am solo yu baax yu mu koy jural yoo xam ne yëmut kese ci ne day mucc ci sa war a tàbbi àjjana waaye fii ci àdduna am na ay yëf yoo xam ne da ko fii mos bala fay jóge yooyu bokk na ci ne képp koo xam ne wéetal na yàlla sellal diineem fexe ba mucc ci bokkaale kooku am na sécurité fii am na it ak gindiku mucc na ci réer mucc na ci ragal moo tax borom bi tabaraka wa moo ko waxal boppam alladina amanu ñi gëm yàlla te seen ngëm gu wér walam yalbisu imaanahum bi zulmin te seen ngëm yàlla jaxasewuñ ko ak bokkaale nee na ulaayika lahumul amnu wa hum muhtadun ñooñu am nañ sécurité bu mat sëkk ci seen lépp yàlla nee na seenum xel dal na wërsëg du leen tiital àdduna du leen tiital xëccoo nguur du leen tiital lenn loo xam ne danañ leen ko xañ ci àdduna ba mu tax ñuy férféri amut kenn nit mënu leen a xoqtal nag ba ñuy férféri kon ulaayika am amn wa hum muhtadun te ñooñu gindiku nañ yoon wa gën a jub fii ci àdduna nga xam ne ku ci jaar sa àdduna dana aw yoon ba nga mucc ci texee dik àdduna ëllëg nga mucc àllaaxira gindiku googu ñooñu am nañ ko kon lu réeréy la kon loolu ci ngëneelul wéetal borom bi tabaraka wa ci la bokk borom bi tabaraka wa taala nag ci laay jooju dafa jëfandikoo zulm alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ñi nga xam ne gëm nañ te seen ngëm jaxase wuñ ko ak zulm zulm suñ ko doon firi rek tooñaange lañ koy firee tooñaange te tooñaange néew na ku ci mën a mucc loolu moo tax bi laay jooju wàccee saxaaba yi dañoo am njàqare ñu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah noonu de am na njàqare ndax néew na nit ci nun mën a mucc ci tooñ yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom mi ñu wàccee ci moom alquran tam xam ko mu ne leen loolu bokkut li ngeen di wax loolu bokkuteg li ngeen di wax zulmu liñ ci jublu fii mooy bokkaale xanaa déggoo ca beneen aaya ba jaamu bi yàlla ba muy luqumaan ba muy dénk doom ja di ko wax sama doom laa tushrik billahi bul bokkaaleeg yàlla kenn inna shirka la zulmun azim ndax bokkaale tooñaange la kon tooñaange gi gën a màgg ci tooñaange yi mooy bokkaale kon aayaa ngoog bu màgg boo xam ne day wane ne nit ki am na góolu tépp àdduna ak alaaxira ba tey leeralaat na ko ci lu aju ci wàllu alaaxira ne ki gëm yàlla te sax ci doo am njàqare ëllëg mooy fi borom bi tabaraka wa taala di wax ne njàqare lu mag la su dikkee ni alfazaul akbar njàqare la nga xam ne kenn ku nekk dëgg tiit ba defe ne yàlla bindul woon keneen ku dul yow njàqare lool su ñëwee nee na malaayika yi ñooy dajeeg ñoom di dalal seen xel ne leen haada yawmukum alladi kuntum tuwaadoon seen bis biñ leen digaloon ne leen danañ leen jox xéewal ya tey kon bu leen jàq in alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaaikatu alla taxaafu wala taxsanu malaayika yi dañuy wàcc di dalal seeni xel ah kooku diw man ngaa bég yow na sa xel dal yaa juboon yaa wéraloon sa tawxiid yaa sellaloon sa diine yaa muccoon ci bidda yaa biddaa yaa jàppoon ci sunna bul ragal na sa xel dal kon njàqareel àdduna ak loolu àllaaxira boroom bi tabaraka wa fegal na ko ñi wéetal seen boroom sellal diine yi seen borom kon mbir la moom moo xam ne jaadu na ittewoo jaadu na itam xam ba tey mbokkum jullit mi su fekkee ne sa diine sell na sa tawxiid wér nga sori bokkaale ci mboolem say pas-pas ak say jëf ak say wax borom bi tabaraka wa taala dana la joxaat xéewal bu mag xéewal googu mooy gan mooy jéggal la say bàkkaar ndax doomu aadama kat ak lu mu baax baax daa munta mucc ci ay rëcc-rëcc waaye bokk na ci ngëneelu tawxiid muy jéggal la sa yeneen bàkkaar yi bokkul ak bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne Bukhari ak Muslim ñoo ko solo mu ne yàlla nee na yow day yow sama jaam bi soo daje woon ak man fekk li nga gàddu ci ay bàkkaar fees na suuf si bàkkaar yu bari la li nga gàddu ci ay bakkaar fees na suuf waaye fekk na doo bokkaale ci man dara nee na kon danga ma fekk ma gàttandoo la ak njëggal goo xam ne fees na suuf si allahu akbar danga ma fekk ma gàttandoo la njëggal goo xam ne fees na dell suuf si kon ndekete bokkaale dong mooy musibu mu mag mi te boo gisee diine ak sharia dana ñëw léegi ci kanam muy soññee ci fexe ba mucc ci bokkaale soo ci muccee wéetal sa boroom sellal sa diine loolu mooy dox sax nag faf sa diggante bàkkaar yu mag yi wala ngay tiit naan danaa yóbbaale bàkkaar yu mag yu fees suuf si far bu boobaa doo ko am ndax tawxiid ba ak sell ga mooy doon sa kaaraange loolu mooy tomb ñetteel bi nga xam ne ku wéetal sa tawxiid ku wéetal sa boroom sellal sa diine boroom bi tabaraka wa taala dana la ko jagleel neexale la ko mooy mucc ci ay ñaawteef moo tax yonentu yàlla ba yusuf alayhi salaam xam ngeen ne nattu bañ ko nattu woon nga xam ne mooy nattu bi gën a fitnaal doomu aadama ci nattu yi muy nattu jigéen ba mu demee ba dara desul lu dul musiba xew digganteem ak soxna sa ko fitnaaloon dafa fàttaliku boroomam tabaraka wa dal di mucc ca loola boroom bi tabaraka wa taala ko ne kadalika li an anhu suua walfaxsha nu dox diggante ñaawteef ak i bon bon digganteem ak yuusuf maanaam nu dàq ñaawteef dàq bon bon ba agsi wuñ ci yuusuf moo tax boroom xam-xam yi xóot ci wàllu balaaxa dañuy wax ne aay bi boo ko jàngee danga xam ne du yuusufa moo doon daw jëm ca lu bon waaye lu bon moo dawoon jëm si ci yuusuf li nasrifa anhu suua walfaxsa maanaam yow faxsa yow suu dem leen bu leen ñëw ci yuusuf yéen ñi bon kon borom bi tabaraka wa taala dàqal na ko ay bon bon lu tax mu ne innahu min ibadina al muxlasin am na beneen qiraa innahu min ibadina al muxlisin ndax dafa bokkoon ci sun jaam yi nga xam ne dañoo sellal seen diine dañoo sellal seen pas-pas sellal seen wax sellal itam seen i jëf kon bokk na ci ngëneeli tawxid mooy su sa tawxid wéree dana dox sa diggante ak yu bon ya bokk na ci ngëneeli tawxid ba tey moo di bis boo xamee ne mooy yàlla yi ñëw na ak mbon gi tasaaroo ba mbugalee ak si ci kaw nit ñi nag yàlla ñu yàlla musal ci loolu su boobaa borom bi tabaraka wa taala day musal waa tawxid moo tax nettali nanu ku ci yonent yo paase wa amma samuudu fa hadaynaahum fastahabu alama ala alhuda nit ñi daje ak nga xam ne ñooy samuud daje woon ak yonent yàlla ba mu woote leen ci njub wax leen ni lii mooy li baax ñu lànk bañ koo topp nee na fa axadathum saaiqatu alazaabi alhuun ba mbugal ma ñëwee wàcc ci seen kaw mbugal mu leen doyadal la mu leen suufeel la mu leen alag la bi ma kaanu yaksiboon ci sababu jëf yu bon yañ doon def borom bi ne wa na alladina amanu wa kaanu yattaquun bi loola xewee nu musal ña nga xam ne ñoo doon borom ngëm ña nga xam ne ñoo doon borom tawxiid mooy ña nga xam ne ñoo sellaloon seen diine ba yeyoo ñu tudde leen almuttaquun mi ñu ragal sun borom tabaraka wa kon nit ñi saa bu ñu amee njàqare ak tiitaange ëllëg ñay mucc ca alkande wala fii ci àdduna ñooña mooy ñi nga xam ne ñooy ahlu tawxid mooy ñu ànd ak suñu borom tabaraka wa taala su fekkee nag xam nan kon ni wéetal yàlla ak sellal diineem lu bari ay ngëneel la ndax lii ñu ci tudd dañ cee jukkat ay tomb yu néew kon ñi xam ne safaanub loolu itam noonu la garaawe ci dundu doomu aadama muy bokkaale bokkaale musiba la mbokk jullit yi borom bi nee na du ko jéggale inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duuna dalika liman yasha borom bi tabaraka wa taala bàkkaar bu nekk nit ki mën na ko faatuwaale mu jéggal ko ba mu des bàkkaaru bokkaale bokkaale ku ko faatuwaale sawara lay dëkk faww wala yaasu billah yàlla na ci yàlla du ko jéggale nag firiwul ne su tuubee duñ ko jéggal oxu kay ki doon bokkaale ba suñ jonni tey jii mu jóg ne man day am naa njàqare sama borom fas na may yéene del ci yow wéetal la bàyyi lépp li nu rog bokkaale dëggal ca ma ne li weesu woon lépp suñ borom raxas na ko at tawbatu te jubbu ma qablaha tuub bu diggee day raxas la ko jiitu woon da koy màbb kon kii dund tuub bokkaale borom bi tabaraka wa taala dana ko jéggal kii dund tuub kéefër borom bi tabaraka wa taala dana ko jéggal waaye lim dul jéggale mooy ku xoole ba faatuwaale ko yàlla na yàlla musal ci loolu kooku du ko jéggal ndax nee na bokkaale ki ko def ba faatuwaale ko faqad iftara isman azima nee na kooku aw duur la defal yàlla mooy wutal ko moroom beneen bi ne beneen bi mu ne faqad dalla dalalan kooku réer na réer goo xam ne gu sori lool la réer gu sori lool mooy ku jàdd yoon kon borom bi tabaraka wa taala tawxiid la bëgg ci nun yàlla nañ ko jàpp ndalal bokkaale la bañ ci nun tawxiid mooy li nga xam ne suñ ko amee la ñuy xaar ci ay xéewali àdduna ak àllaaxira bari na lool waaye bokkaale wala yaasu billaahi ku ko yóbbaale la xaar ci mbugale àllaaxira moo gën a metti li ngay jànkoonteel ci texee di fii ci àdduna moo tax isa alayhi salaam bokk na ci bi muy woo banu israil mu ne ubudullaha rabbi wa rabbakum jaamu leen yàlla mi nga xam ne mooy saa borom mooy seen borom yéen itam innahu man yushrik billahi waat naa ne koo xam ne bokkaale naag yàlla dara faqad xarama allahu alayhi aljanna nee na yàlla araamal na ci moom ajjana wa mawaahu naar nee na sawar mooy këram ëllëg wa ma lilzalimina min ansaar te nee na bokkaalekat yooyu kenn mënu leen a xettali du ràmmkat du yonent du waliyu du wenn xeetu doomu aadama woo xam ne su leen borom bi tabaraka wa taala jàppee ba di leen bëggal mën nañ leen a xettali ci loolu wa ma li zalimina min ansar kenn mënu leen caa dimbali kon mbokki jullit yi suñ xamee ne tawxid nii la rëy nii la amee solo sellal sa diine def ko ngir sa borom nii la màggee nii la amee solo te bokkaale nii la réyee suñ ko xamee kon nun ñëpp war nanoo am yëg-yëg ne loolu lu mat a xamlu la lu mat a jàng la ndax kat borom bi tabaraka wa taala su dee digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko jàngal laa ilaha illa allah baatub laa ilaha illa allah faalam annahu laa ilaha illa baat boobu dee ko jàngat di ko ko di xool lim làmboo ci ay maanaa su fekkee yonent bi la koy digal kon keneen ku dul moom taxut ñuy wax kon du wér mukk nit ki dem ba mu yàgg mu ne ah man de xam naa tawxiid léegi ba jeexal naa soxlaatuma di ko jàngat wala di ko baamtu mu kay sa dund li tax ñi bind la mooy loolu kon foo toll fu ne war nga koy baamtu baamtu gi lim lay dolli mooy dalay dolli xam-xam mën na laa dolli ak dëgër xool bu baax a baax boroom xam-xam yi li ñu wax ci tawxiid moomu ci ay njariñ ak mucc ci li muy jariñ tey ak ëllëg ay mbir yu bare bari yu du jeex la kon nag jaadu na laa ilaha illallah moomu nu jàngat ko jàngataat ko fàttalikuwaat ko donte ñépp sax insha allah waa tawxiid lañ waaye ñi di ko baamtu du wàññi dara ndax ndox mii ngay xëy di naan balaa jant beesoo nga naan ñaari yoon ñetti yoon lu tax sa dund da cee aju tawxiid moomu sa dund daf cee aju ndax moo tax borom bi tabaraka wa bind la kon su fekkee xamoon nga ko it di ko baamtuwaat di ko fàttaliku munta ñàkk soo ko xamul woon nag kon ca la rawee bind bu bees la ci yow nga jéem koo xam jéem koo jàpp loolu moo tax jàpp naa ne lenn ci ay xutba yoo xam ne day jëm ci tawxiid ñi xam laa ilaha illallah moom mi ñuy wax ne day musal nit ki ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat nee na ëllëg nit dana ñëw ñi jël ay ñaawteefam teg ko ci ay balance mu not jëf yu rafet yépp ñu seen balance biñ teg jëf yu rafet yi tekkiwul dara ba ñépp ne kii de alku na ñu indi benn bataaxel bu ndaw ñu ne tegaguñ ci bataaxel bi kat xaar leen ba xam ñu teg ci bataaxel boobu rek ndekete laa ilaha illallah moo ci ne muy tawxiid nee na mu daal di wat ñaawteefam yépp ñu daal di koy dugal àjjana waaye nag laa ilaha illallah moom yi mooy man ndax mooy rek nga wax ko wala nga wayantoo ko wala nga di ci wax nangami junni par bés ci saw làmmiñ te sab xol ne ci leneen wala dafa am charte yoo xam ne su dajee laa ilaha illallah jooju mooy xett li nit ki kon danañ jéem a xam incha allah ci yeneeni xutba laa ilaha illallah jii xett li nit mooy jan yàlla nu ko sunu borom tabaraka wa jàpp ndelal te may nu lépp loo xam ne luy xett li nit ki ci wàllu tawxiidam la di ko saxal ci diineem di ko musal ci seytaane may nu itam kóolute giir sunu borom tabaraka wa taala digee ci tawxid ci wàllu àdduna mu defal na ko nun ñëpp defal ko mbooleem jullit yi def ko ci sunum réew muy kóoluteg àdduna te nun ñëpp it mu defal nu kóoluteg àllaaxira bu bu ëllëgee nu bokk ci ñi nga xam ne dañuy nangu seeni téere ci seen loxo ndeyjoor ñu ne leen seeni kër a ngee ñu daal di wax dugg àjjana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain